docteur Alioune Ba ñu ngi lay nuyu di la dalal. maa ngi leen di fay leen sant di leen gërëm aussi. yow ngay coordonnateur forum civil bu Thiès euh, tey ñu dégg leen ngeen di woote euh, ci li nga xam ne mooy installation maire yi rawatina yu opposition bi ngeen wax ne nañu gën a jëmbat lépp lu jëm ci esprit républicain lu waral woote bi lu ngeen seetlu. waaw lu ñu seetlu mooy euh, dëkk bi dafa bëri ak péete. Hmm. Euh, PT bi dafa fees ba parfois euh, dañuy fàtte njariñu réew mi. Mm-hmm. Euh, moo tax ñu ne élection yi ñu génn occasion la war a doon pour que nit ñi fàttaliku ne maire yi ñuy laaj du pour seen parti du pour seen bopp. Mm. pour faj soxla sénégalais la. Mm-hmm. muy si côté pouvoir comme côté opposition. Mm. pouvoir bi warul bloquer maire yi ne kat comme opposition lañ nekk duma leen jox moyens yi ma leen war a jox pour ñu liggéey mais opposition bi aussi warul utiliser maire yi pour sonal état bi. donc loolu mooy esprit républicain sax à dire ku nekk xam ne li ma yor pour faj soxla nit ñi la. d' abord na n'empêche bu ma waree def politique dinaa xam fan laa ko war a defee mais li ñëpp bokk moom dama koy gérer pour ñëpp bañ ci wane benn péete boo xam ne day lor ñenn ñi désavantage comme ni ko tubaab di waxee xañ ñeneen ñi voilà. tey ban jàngat ngeen def gannaaw élection territoriale yi nga xam ne amoon na ci mim réew euh, fan yi ñu wees. waaw euh, di sant yàlla rek Thiès waaw di di sant yàlla rek parce que euh, si li ñu gis. Mhm. jàll na si jàmm tegu na si yoon bon c'est vrai am na. ay tuuti e euh, xat yu ci amoon mais buñ ko comparé li li ëpp alhamdulilah parce que ñi ñu fal nangu nañ ne ñoom ñoo gañe ñu ngi leen di installé mu toll nii mm. te euh, duñ ci nekkuñu ci pouvoir bi voilà maintenant nag am na yoo xam ne nañ ko jooyanti ba léegi pour que par exemple liste yi ñu yu ñu recalé woon ak ñooñu yooyu mën nañ ko éviter la prochaine fois pour que ñu war a bokk ñëpp bokk globalement daal jaar na ci yoon parce que euh, nit ñi dem nañ voter Euh, résultat yi génn nañ te nit ñi nangu nañ ko ñi gagné ñu ngi commencé di dem di rejoindre seen lieu de travail. Mhm. maire yi bëri na lu ñu leen di tudd ci mbirum suuf tey. Mhm. Euh, problème foncier dafa doon euh, problème dëgg ci mim réew. ñu daal di mhm. fal nag ay maire yu bees lan moo wax tey ci ñooñu la nga xam ne ñu ngi leen di fal bu bees. gis nga soxna si suñu interview bi yëpp mënoon na la yam ci foncier yi. parce que li nga sa laaj boobu dafa am solo ba. parce que Sénégal foo manti dem bu ñu nee maire rek li nit ñi di xalaat mooy jaay suuf. Uh-huh. alors que suuf si euh, jumtukaay la war a doon pour nit ñi liggéey si faj seeni soxla sans ñu ñaan kenn. Uh-huh. mais pour que loolu mën a nekk il faut que maire yi yenn maire yi génne seen xel ne suuf loo xam ne dama ko war a utiliser la. pour samay njëriñu bopp wala ak samay njëriñu jegewaale. Mm-hmm. suuf si dañ ko war a teg si yoon parce que am na yoon bu ko bu ko bu ko bu bu ko encadré. Mm-hmm. depuis 1964. Mm-hmm. mais dañ koy contourner c'est-à-dire dañ ko fexe ut si ay pexe. ba di ko jaay ba tax nit ñi ñu bëri euh, jóg même mu jar leen seen bakken. nar si xeex nar si dee. parce que loolu rek la am buñ ko jëlee si ñoom. mooy seen tortaange. Mhm. donc maire yi bees yi euh, vraiment dëkk bi dafa soxla nit ñi léegi fàtte seen bopp. Mhm. fàtte seen i intérêt personnel. Mhm. jublu ci njubal jubal teg waxuñu kenn bu mu utiliser suuf si mais boo ko utiliser ña fa nekkoon war nañu gis mu leer seen bopp ni li nga koy utiliser seen njariñ la. parce que loolu la ñuy wax collectivité territoriale. da ngay pour les populations. mais boo fa bëggee def loo xam ne du njëriñu population bi. même suñ jugul xeex yaa ngi leen di lor te au lieu nga leen génn si ndóol da leen di gën a enfoncé gën leen a buux si si si ndóol bi. Mm-hmm. donc loolu moom vraiment dama ci insister bu baax les maires la te warul yam ci wax rek dañ leen war a sax surveiller. Mm-hmm. pour que vraiment mandat bi doon mandat boo xam ne kenn du fi dégg ay waxi coow suuf. ñu teg mbiri si yoon bu ko tegee si yoon rek population yi ñoom seen bopp kenn du leen dégg. Ah, ah. justement ci surveillance googule yéen waa forum civil bu Thiès daan nañ leen dégg ci ay session renforcement de capacité jëm ci mbirum suuf ndax euh, ak élection ak euh, ay maire yu bees tey jii euh, ca Thiès rawatina dinañ leen déggaat ci dynamique googule. waaw waaw loolu mën naa wax sax ne par la. Hmm. parce que ñun forum civil yamuñu ci wax rek ci ay rajo ci ay média fu ñu toll ñu ngi former nit ñi te maire yi si lañ bokk euh, di leen accompagner euh, di leen renforcer seen capacité. Mm. parce que nit ki lu mu xamul aussi lu yéeneem toll mënti toll du tax mu mën ko def ni mu war a waree. Mm-hmm. il faut que nit ki xam liñ ko jox lan la d'abord te c'est pas parce que dañ la fal rek nga tax nga xam nga nit mën na politique mais euh, nekkul ni xam na forcément li muy ko jox lan la. li muy mhm. lan la. Mhm. donc bu gañee nag dafa war a am nit ñu ko gunge euh, li ko manqué ñu dolli ko ko ak li mu xamoon pour que parce que suñu problème aussi parfois loolu la parfois dañuy jox maire yi ñoo xam ne man nañ sax am yéene bi mais amuñu compétence pour bien gérer la commune te loolu retard lay doon de cinq ans pour la commune donc il faut que te loolu ñun forum civil incha allah dañ ci taxaw ak suñu direction Dakar bi. fexe am ay programmes yoo xam ne amoon nañ ko dans le passé mais yaakaar nañ ko amaat pour gunge leen fexe renforcer seen capacité ba ñu maitriser liñ leen jox li si des nag mooy jubal bi loolu aussi nañ ci taxaw xar si suñu tànk tubéy ba euh, bu ñu xamee ñu fexe ñu jubal parce que ñaar yooyu ñoo mën a tax euh, ñu réussir seen mission xam li ñuy def mais jubal aussi si li ñuy def. pour tëj rek euh, chapitre euh, wax waxu suuf euh, tey jii assiette foncière bu Thiès tey lan lañ ci mhm. mën a jàpp. bon loolu je pense que du secret kenn Thiès fii pratiquement dara desetu fi. Mhm. ci assiette foncière ay poche ñoo fi desoon te dégg nga coow lu si jublu woon lu fi si jógoon coow accusation ñu accusé woon génne def seen conférence de presse mais loolu lépp daal. Euh, li may wax mooy ñi jël actuellement mairie Thiès yi ñu si ëpp opposition lañ nekk te nit ñi leen wóolu ba jox leen peut dafa am lu leen naqari ci ñi fi nekkoon moo tax jël ko seeni loxo jox ko jox leen ko ñoom mm. donc ñoom dañ war a réussir seen mission ñëpp sax même ñu nekk ci nguur gi yor ay maires yi ñoo xam ne seen mandat bële Euh, réussir wuñ ko woon wala li ñu ko waroon jubale jubal gi dañu war a profiter parce que nit ñi dofak ñu léegi ku liggéeyul boo deful ndànk dañ lay sanctionner le meilleur moyee nit ñi wóoluwaat la mooy nga teg seen bët lu leer naññ te lu leer naññ mooy lan affaire suuf ak yeneen ak yeneen ay mbalit ay lu nit ñi di jëfandikoo mm-hmm. nga liggéey si ba ñëpp xam ne kii kat jàmbaar monsieur Babou ñu mhm. wax ci benn ndaje bi nga xam ne yéen a ngi ci doon waxtaanee li jëm ci liggéeyu douane wax ne souvent euh, day am euh, benn malentendu bi am seen diggante ak askan wi lan ngeen seetlu. waaw li seetlu rek mooy lu ñëpp seetlu. Hmm. foo ne douane euh, rek ñu bëri dañuy naan luubal voilà. une mauvaise image daal comme ni ñu koy wax ci tubaab euh, nit ñi daal euh, ni ñuy gisee douanier bi. Mm-hmm. Euh, rafetul toujours. Mm-hmm. mais ñun bi ñu leen oowee ñu nangu leen te ñu leen ci sant ñëw wan ñu lan la ñuy liggéeyee. Mm-hmm. ak li am fan lañ koy jëlee normalement li normal. dañ ne lii kat jar ngeen gën a fexe nit xam. gën a xam ba gàkk-gàkk bi nekk seen der mën a set tuuti mhm. parce que mënuñu nekk si dëkk euh, institution bu am importance di douane dugal alal ci gafaka nguur mhm. te nit ñi wóoluwuñ leen nit ñi rafetluñu seen liggéey peut-être ñi xam mais ñi xamul mën ñu xam donc ñu man wan leen a jox la bonne information en plus mhm. ñoom seen biir dëng-dëng yi fa mën a am parce que fenn matul. ña fa nekk ci biir te jubaluñu ñoom it ñu fullay fexe ba ñooñu ñu arrêté li ñuy def parce que comme ni ñuy wax rek benn kii bu. benn soble computer bu nëpp mën na mhm. benn soble bu nëpp mën na yàqu saako. saako bi waay. voilà donc ñoom aussi war a def ay effort ba nit ñi xam ne li ñuy am ñoom seen bopp. Mhm. dañ ko mérité. Mhm. bu loolu amee rek. nit ñi dootuñu am mauvaise image mais nit ñi bu ñu xalaatee ne ñi kat dañuy luubal wala ñii kat euh, voilà ak leneen ak leneen bugguma jaar si kàddu bi. Mm-hmm. mais loolu baaxul ci euh, liggéeykaay boo xam ne réew mi def ko yaakaar pour dem ci kanam. bu weesoo mauvaise image boobu ndax dafa am jeexital tamit ci seen liggéey. day am lu muy yàq seen liggéey. ah bien sûr njeexital bi mooy lan ku nekk da ngay fexe. Euh, jaar ci euh, foo warul jaar. Hmm. pour bañ a fay. mais bu ñu tegee lépp si yoon ñëpp fay li ñu war a fay ñoom seeni objectif li ñu war a jël si nit ñi dugal ko ci keesu nguur gi dina gën a yokk te bu gën a yokk nguur gi teg si yoon nit ñi nañ gis seen situation di changer. d'accord donc si si njeexital bi mooy loolu c'est-à-dire que ñoom seeni objectif. ñu mën ko atteindre mais duñ ko mën a atteindre tant que nit ñi nee nañ bon fii daal euh, mbir yi teguñu ko ci yoon donc man man am naa porox ndool bu mën a jaar ba li ma war a fay du ma ko fay. Mhm. te loolu réew mi moo ci perte. te yéen jàpp ngeen ne benn benn ñoo ci jariñoo. Mhm. mais mi moo ci perte. jàpp ngeen pour ñu àgg foofu faaw ñu cultiver euh, civisme fiscal ak citoyenneté fiscale. waaye euh, civisme fiscal maintenant côté impôt. Mhm. loolu côté côté côté impôt la. c'est-à-dire de la même façon que douane. mi ngi def liggéeyam euh, côté am hmm. dafa am impo aussi ñoom it lu ñuy jël douanier dafa am muy jël impôt civil fiscal du dul dara de sénégalais bi xam ne hmm. li may jox waa impôt leen ko diko ko perte hmm. si la ñuy defar tali yi si la ñuy fay liggéeykatu nguur gi si la ñoŋal ndox mi ñuy naan li état bi warloog nit ñi yëpp impôts yi dafa bokk si lu koy faj. Mhm. donc service fiscale mooy nit ñi xam loolu ba xam ne man kat li may jox perte ko. Mhm. bu boobaa am na ñoo xam ne doo dem sax di leen laaj. parce que voilà du ko jar sax ñoom mhm. seen bopp ñoo jugal seen bopp dem fay loolu moo war a doon objectif service su impôts yi fexe ba ñoom it ragg seen der euh, état bi aussi xaalis bi ko waa impôt di jox douane ak ñeneen ñeneen. mu ciy liggéey ba xam ne nit ñi seen bopp nañ ne ah man kat dërëm ak ñaar dërëm bi may joxe am na njëriñ. dinaa gis làmp bu tàkk yoon yu baax su ma bëggee faju dinaa faju samay doom bu bëggee jàng nañ jàng liggéeykatu nguur gi kenn du mer. Mm-hmm. ñu teg daal mbiri si yoon ba xam ne nit ñi nañ xam ne kat impôt bi ñuy fay am na njëriñ. mais résistance yëpp souvent mooy nit ñi pour ñoom xaalis boobu daal ay benn ñaari ñoo koy akimoo di ci def lu leen neex donc ñoom bu ñu mënee rëcc rek dañuy def tout pour rëcc bañ a fay. ñu lay jaajafeel bu baax a baax docteur Babou waxtaan wi am solo lool. jërëjëf yéen it vraiment merci beaucoup yéen